asalaamaaleykum mbokk yi ñu sax di xel fii ci Al Haïbou TV di la askan wi te nag ñu ñëwaat ci waxtaanu Serigne Sam waxtaan yu am solo yi nga xam ne moom ko daan faral di def daanu ko def lu dul di yee doomu aadama yi rek jëmale leen ci suñu borom bëgg jamono bi nag gis nañu bu baax a baax nit ñi ak ni ñu woyofalee euh, teggin teggin nag doon lu am solo ci doomu aadama mel na ne oyofal nañ ko lool lool culturel daal bi nga xamante ne moo am ci réewum Sénégal wuti na ak. Euh, culturel bi nga xam ne mag ñi ñoo ko daan dund mel na ne li liy dëgg-dëgg teggin daal moom ci jamono bii oyofal nañ ko lool kon ñu ànd ak sëñ Sam sëñ Sam Mbaye incha allah mu décortiquer ñu lan mooy la ban yar la war a yar sunu njaboot incha wax nu baal man wolof laa waaye wolof bari nañu way bopp de ndax luñ gis topp ci moom lu ñu gis ànd ci te itam dañoo yomb yóbbaale ci bari gën a xel jaar nañu ci dëkk dëkk tubaab yi mën na xale yi bu ñuy fi bal boo leen jubee rek ak li leen kenn yarul yëpp ñu téye bal bi bëgg a jàll te ay tubaab xale yi tubaab fii da nga leen romb duñ ñëw sax ne yaa ngi jaar ba dóor la ko loolu ñu dara duñu woyal bopp ak li ñuy tuddee li tubaab bi wax sous développement nit moom bu fekkee ne sous développé la su développé la ci jëmmam ci yaram su développé la ci xelam su développé ci xolam su développé la ci léppam su développé la ci léppam ndax li nga xamee ne bu njëkk bi jaam daawoon am jaam bi xelam nekkul ci lijjanti dara lépp lañ ko koy lijjanti di ko jox añ di ko liggéeyloo du xalaat dara moo taxoon mu gàtt xel bu su doomam juddoo itam gàtt xel naka noonu képp xam ne dañoo yor sa lépp di la xalal yow sa ci dara doo xam boo déggee ñu naan kajoor xel dañoo am xel dañoo mën a làqar ci àdduna dañoo mën a war ka ay buur lañu war ñoo xam ne ñoo yoroon réew mi ko doxal ko defee ñooy xalaat nan la nit ñi def bëri ci nan la ba gën a not nit ñi nan la ñuy def ba dënga lijjanti àdduna bi nan la ñuy def ba yàqu-yàqu bi ñu defar ko kii xalaat nag bokkul ak ki nga xam ne day gis rek lëf bu nit defee fii euh, dara am ca dara ñëpp daal di jóg def ko mu daal di yàqu wala buñ gisee nit ki mel nii ñu di ko xool ñëpp daal di koy roy buñ déggee fii bu aw way xewee fii xale boo romb ma nga koy way fecc xale fii xale boo romb fecc fecc booba lay fecc hatta wut la yaa ngi jëf kon loolu mu nekkoon vidéo bi ba beneen incha allah